ñu ngi nuyu bu baax a baax inspecteur Ndoye Bane di ko wax salaamaaleykum. jaajëf Eva ñu ngi lay jaar di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. c'est vrai. Euh, di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko mm. ñaanum yàgg fi lool te wér. waaw di ziar waa Pire Sañu Xoor gi yëpp sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent ji jaañ Diagne Baye Baye doo sa xarit bi xam naa ne war nga koo seeti. Baye Baye doo Dieng. <laughs> war nga ko seeti de. dëgg la <laughs> ni nga ko a dem Pire. <laughs> waaw seeti xam nga loolu lañ naan cofeel yàllaa koy def doo gis nit ki. waaye dafa mel ni da ngaa dëkk ak moom. non non noonu ngay gisee ku romb ndoy baan miin la. non bëgg nga nuyu la nuyu gu rëy. bëgg nga paa bu neex. ndeysaan déedéet xanaa. paa bu am connexion sax. c'est bien ça ziar bu baax di ziar moom parent mu euh, maam Cheikh Anta ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax moom moo fa nekkal xalif euh, général des Mourides mhm. ak kilifa yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax di dalal jàmm euh, mhm. monsieur Fane di ko ziar bu baax ak enseignant yeeg doyen Abdoulaye Fane mm, Abdoulaye Fane waaw ah, tey waa waa Ségou la ñu invité mhm, ah, nijaay la rek ci Eva laay wax wallaahi ah ndax sama ñoom yaay moom surtout surtout daamoo Sodiara lañu. Uh-huh. Uh-huh. kon boo fi teewee. ni Sénégal di doxee danaa la ne nijaay la nijaay nga ci ñun. macha allah salaamaaleykum. aleykum salaam eh, soxna Eva Tra. Hmm. Eh, nga permettre ma rek ma wax la jarbaat. dëgg la dëgg la eh, sa nijaay la. ahan ah, kay. ci wàllu xeet defe naa ñoo bokk Mali. dëgg la fa lañ cosaanoo ci ñu way jur. dëgg la di nuyu Mamadou Ndoye Bane. Mm-hmm. di leen gërëm di leen sant. ci mm-hmm. seen émission bi ngeen di def. merci ñu koy suivre lool. Mhm. et comme ni ma koy doon waxee sànq bi ñuy tàmbali baax na sax ngeen décaler heure bi waxtu wi pour auditoire bi euh, gën a gën a am solo. Mhm. di ci profité di nuyu aussi euh, ndongo yi Sénégal yëpp. ak ñu nekk ci diaspora bi effectivement. ak jàngalekat yi ak ñëpp ñi nga xam ñoo ŋànk système éducatif di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ba lépp liñ fiy wax fii mu war a amal amal askan wi mhm. mangoog tey ajaratu asu jara dana kontaan ndax daf may wax ni ma awa dee ma nuyu Youssou Ndour ndax sama seex la kon boog tey àggali naa message bi sama yaay boo waxee mu ne di way sama kon boog macha allah àggale nañu message bi mhm. Ndoye invité nga ko fi mhm. en tant que parent d'élèves waaw moom moo jiite union nationale des des union mhm. nationale des élèves et étudiants du Sénégal euh, moom la jiite moo tax ñu dal ko fi di kuréel goo xam ni kuréel gu am solo la nga xam ni fañ nga xam ni fa la ñuy négocier ak fa ñuy fa la ñuy waxtaanee njàngale mi. dëgg la njàngame njàngale moom incha moom daf fay daf fay teew. Mhm. li ma koy laaj rek mooy kuréel gi kañ la judd. très bien waaw sunu kuréel gi bi mu ngi juddu 2015. fukki fan juróomi at ci ren juróomi at ci ren fukki fan ci weeru janvier naam nag yàlla dogal na ñun pratiquement lu mat ay ñaar fukki at a ngi mu ngi doon yëngatu ci mouvement parental. ma nekk beneen kuréel boo xam ne bii moo ñu mag. mu tudd FENAPES. bi ñu demee nag ba ak diir ci lañ xool ne daal. ñu yaakaar ne am na beneen yoon boo xam ne buñ ko buñ ko bu ñu ci jubloo. dina war a tax euh, jur ndongo yeeg système éducatif di manière générale ñu mën a am euh, maanaam ndam ak euh, njariñ. pour sunu sunu doom yi. di di di leeral ne aussi. Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants Sénégal ñu koy wax UNAPES dafa tàmbali. ci tout tànk yi nga ñuy wax préscolaire ba classe yu yi nga xam ne yi mooy université maanaam parent d'élèves la ak étudiants mhm. yu Sénégal élèves et étudiants lan moo leen animé ba ngeen fusion boobu très bien ba ngeen teg kuréel gi lan la coow li dafa bari wala lan moo tax ngeen teg kuréel gi lan mooy mission xam nga boo ko seetloo daanaka réew yëpp xam naa dinañ ci yegsi parce que am na am na am na loo xam ne li xam naa du ñàkk ngeen laaj ñu ko euh, boo ko seetee réew àddina yëpp am nañu kuréelu wayjuru ndongo moom laay faral di wax sax même le président ma Macky Sall man maay président am. actuellement ndaxte wayjuru ndongo la. la dëgg la. donc euh, dañu di rek dafa di boo juree ay doom il faut nga dal leen di accompagner di leen jéem a jàppale ba yoon wi nga xam ne far nañu war a jëm ci wàllu njàng ak njàngale ñu bar mu bañ am ay déviation mm-hmm. ba pare ñëpp xam nañ ne école sénégalaise ba mu juddoo 1960 ba léegi am na yenn jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jànkonteel mu gën a tar nag jamono yi ñuy toll ndaxte classe yi mag matatuñu yéen a ngi dégg mbaal yi ñuy wax abri provisoire njàngale mi environnement scolaire na mu demee des na. Mm-hmm. rax ci dolli grève yu bari. ba tax na tàmbali na sax nag. Mhm. waaw tàmbali na defe naa ne nuyoo ba mu nuyoo kenn fu fayu ko comme nañ koy waxee. Mhm. Mhm. parce que mais ñun leeroon nañ ne avertiroon nañ ne grève dana am. ndaxte ba mbir mi commencé euh, mbas mi dafa tombé woon ñoom ñu nekk ci seen wàllu grève léegi ba am na foo xam ne ba mu fa tolloo dañoo mujj suspendre seen mot d'ordre. dal di jàppale nag occasion la pour rendre leen hommage dal di jàppale ci seen am-am yépp pour quand ñu dal di xeex mbas mi. Mhm. donc nuyoo na nuyoo na woon kenn fayu ko. Mhm. mu ngi fi woon jafe-jafe yeeg yëpp. Mhm. ba tax na nag comme léegi mbir mi xaw na tar tuuti ñoom ñu dal di jël engagement ne léegi la ñu jëloon dañ dañ dañu delluwaat buum ba ca mboy mboy ga mais nag am nañ yaakaar ne quand même bu ñu waxtaanee rek. ak monitoring yooyu nga xam ne dinañ ko wax. suivi des accords yi nga xam ne docteur Cheikh Kanté moom moo ko doon présider. peut-être dinañ ko reprendre mu mën a permettre euh, véritablement. ñu mën a régler mbir mi. dañ leen di dégg tout le temps ngeen di wax ci monitoring boobu. Mm-hmm. xanaa package la. waaw monitoring sax baatu baatu angale la. Mm-hmm, mm-hmm, maanaam buñ ko mënee wax ci wolof rek mooy topp. ya poñ nga xam ne yi dañ ci d'accordoon topp ko xayma ko ñaari pàcc yëpp toog maanaam syndicaliste yi ak gouvernement bi. ñun daanaka ñun ay arbitre lañu. ñu société civile. bu ko defee. lépp la nga xam ne signé woon nañ ko. Mhm. ñu koy jël benn benn jéema seet na lañ koy saafaraa. ma bu ñu ko mënoon a saafaraa sax ñu jël jéem a seet nan la ñuy am ay diir yoo xam ne yi dañu naan à moyen ou long terme. pour jéem a seet di ko def ndànk-ndànk. mais depuis 2014 bu ngeen ko fàttalikoo euh, la la la ministre bi fi ne woon tudd Mansour si mhm. ba ñu ak accord yi mu des lu bari ba le 30 avril 2018. Euh, keroog defe naa ne ba dañu ne woon veille premier mai la sax keroog ba deux heures du matin ñu ngi woon primature di waxtaan ba trouver ay plage yoo xam ne ak d'accord nañ ci waaye nag am na ay jéego yoo xam ne xaw na des te boo ko seetloo sax bi nga xam ne bii moom mooy boo vraiment boo xam ne waroon a nekk suñu ginnaaw moom mooy li tax ñoom fan yi ñuy ñaxtu moom mooy euh, ndàmpaayu euh, seen déplacement yi ñuy def bu ñu def examen baccalauréat mhm. ak BFEM parce que ñun mënuñu comprendre. yow lan maanaam la nga xam ne sax passé na ay weer a ngi. voilà mais lan lan ñu waxante woon ak état bi waxul. la ñuy waxoon tey nag état bi deux mois la woon. la ñuy waxoon tey woon nag bi te man maa nga woon teew. représente suñu organisation. waaw premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ko waxoon ne désormais le trente novembre bu jotee war na fekk loolu yëpp dal di dal di féete boor. Mm-hmm. mën nañu comprendre nag depuis 2018 chaque fois il faut que ñoom ñu dal di génn ñaxtu. feeñal seen bopp kon su ñu defee examen ba mu am deux mois. au plus tard boo ko seetee sax en principe parce que examen yi généralement du juillet lay doon. Mhm. ba jàpp août. Mhm. mais bu fekkee ne da nga prévoir sa sa budget ne lii at mu jot day ñëw mu ngi mel ni rek sa kër nga am sa dépense boo xam ne bii ndox ak courant yooyu yëpp at mu jot day weer wu jot day ñëw. mais da nga koy berse la nga fi faaw da koy berse incha allah waaw. donc mën nañu comprendre. Mhm. at mu jot il faut que ñoom ñu dal di génn. dégg naa ñu ne démb nee nañu dinañ dinañ ko dinañ ko saafaraal. dinañ ko uh-huh. viré. mais lu tax ñuy ñuy ñuy toog ba. ñuy xaar ba ñi dal di génn. loolu te jamono ji ñu toll day xaw metti ci ñun ndaxte bu ngeen ko seetloo euh, classe su diggu doomi yi ñuy wax classe intermédiaire depuis mois de mars ba léegi ñu ngi soog ubbi novembre. Uh-huh. léegi loolu nga xam dañ ko waroon na dabe mu dal di jafe lool léegi bu ci lii tegoo mais année bi day day yàqu. dëgg la dafa yàqu. mais mais tout lu tax tout le temps affaire u xaalis rek la état bi di jot joteeg syndicat yi affaire xaalis rek la am na am na yeneen yeneen i problème yu fa am te. Mhm. xaw ma ndax di ngeen koy di ngeen koy souligner ak euh, mhm. euh, syndicats yi mhm. les euh, abris provisoires yeeg ak yi nga xam ne mooy am ci école manque d'enseignants yi nga xam manque jàngalekat yi nga xam ne ñooy manqué yenn saa yi ci ci région yi à l'intérieur du pays lu tax yooyu dooy dégg du may gis mukk gars yi grève ci pour temps nag xam nga xaalis dafa toll foo xam ne fi dafa bare moom mooy feeñ ñaare. ak ci yàgg. moom mooy feeñ ñaare ci revendication yëpp syndicat boo dem ñaare wàllu. koppar yi koppar yi moom dafay feeñ. waaye nag am na yeneen point yoo xam ne yi quand yu am importance la yoo xam ne yi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñoom dañ koy wax souvent. yow jàngalekat nga woon. man inspecteur de la jeunesse et des sports la. Mm-hmm. daanaka presque ba tey génnoo ca biir la. assimilé la assimilé la est-ce que doo parent d'élève buy xaw a jeng yenn saa yi di jàppale gars yi yooyu ou da nga nekk ci digg bi rek. barki démb rek ministre mu ngi may woo yàlla xam na ko te télévision laay waxee. on a discuté ñoom il semble que penser que ñun quelquefois suñuy suñuy revendique su su suñuy wax. dafay xaw a tirer ci état bi. bu fekkee nag aussi côté boobu ñoom it enseignants yi dañuy dañuy dañuy wax ne yenn saa yi dañuy ànd ak état bi. ce qui veut ñun li ñu naan équidistance dañoo diggu dóomu. <coughs> dañoo diggu dóomu. Mm-hmm. faraluñu kenn lu dul suñu doom ak mm-hmm. système bi. Mm-hmm. fépp nag foofu nañ fa quand même. Mm-hmm. Euh, war na ay tolof dinañ ko dox. ñaxtu ko wax ko nañ ko war a wax. maanaam ñun mbirum euh, taxawaayu sentinelle lañu lañuy taxaw. fu mu sooxee rek ñu dal di koy waxe donc loolu moom mooy suñu rôle ñun association yi parents d'élèves yi. Eh eh association wu parents yan yan parents d'élèves la territoire bi yëpp la comme ni nga ko waxee national ñi nekk ci région yi ak ñëpp waaw loolu laa ko loolu yëpp dina ci ñëw ci kanam waaw ndax ndax association bi ndax euh, sur le plan euh, mangook sañ naa euh, dellu ci moom à Dakar seulement ou bien mi ngi les régions am solo la ndaxte ba ñu sosoo am na ay gox-goxaan yu bari yoo xam ne dañoo ñëwoon teewee suñu assemblée générale bi mangook ñun dañu am ay banqaas banqaas moom mooy coordination départementale daanaka presque waruñu nag Sénégal yëpp mais bari na département yu bari yoo xam ne yi wax dëgg yàlla am nañ fa taxawaay fu mel ni ay Tambacounda Matam maanaam ci quarante cinq département yi daanaka li ci ëpp am nañ fa ay taxawaay te fépp foo xam ne fii bu ñu seetloo ne amul kenn ku ñu fa taxaw dañ fay teg kenn ku ñuy woowee point focal très bien point focal mooy koo xam ne kii dañ koy ci dëkk bi mu leer la ne ku jubla ku nekk ci eh, am association parents d'élèves yi. am fa taxawaay xam ko. ba bu da bu wootee ñëpp dal di koy déglu. kooku nag lañ koy sas moom mooy. Mhm. na fexe ba identifier ñoo xam ne ñi ay association parents d'élèves lañu. Mhm. ñu dal di sos coordination départementale boo xam ne moom mooy wax ci turu wéyjuru ndongo yi. nga xam ne aussi au niveau des maires yi. Mhm. ak au niveau des départements préfets yeeg ñoom seen i gouverneurs yi. chaque fois bu amee ñoom ñu dal di ñëw dal di fay am taxawaay. Mhm. muy jur ndaw yi. Mhm. donc ñun noonu mhm. am bureau exécutif am euh, ay assemblée générale. coordination ak ay commission. yoo xam ne yi ñoom ñooy saytu jafe-jafe yi nga xam day am ci système bi damay joxe benn exemple rek mooy euh, maanaam euh, ub ub classe su dugg kii dugg dëb yi muy moyen secondaire bu ngeen ko seetle muy man di yéen yëpp chaque fois bu école ubbee dafa am lu ñuy wax frais d'inscription. yoo xam ne dañ koy verser muy 10 000 francs frais d'inscription yi dañ koy jël def ko ci benn euh, euh, caisse euh, conseil de gestion bi bu ko defee moom mooy fonctionnel loo en partie moom mooy participation parents yi. mais est loolu. Mhm. da ngeen ci ànd ak ministre ministère bi moo ko sant école bi mhm. parce que am na ay écoles yoo xam ni. Mhm. sama doom sa école ubbee dañ koy laaj. pour mu joxe dix mille francs mais ni école privée. école publique la ñu wax. école publique c'est l'État qui paye tout. léegi man parent bi est man dama war a ñëw joxe dix mille francs. pour sama doom pour pour mën a inscrire sama sama sama sama sama doom. loolu moom yàgg na fi parce que depuis 1960. loolu aussi am na ci su fi yàggee est-ce que texte yi moom moo wax loolu. waaw texte yi moo ko wax. parce que am na dë moom kuy sa doom di jóg école publique. Mhm. xam nga waaw loolu nga wax question bu am solo la. parce que boo ko seetee élémentaire bi dañu ne partici participation parents d'élèves warul am waaye nag communauté bi moom moo dajale da ñoom ñoo daje ne ak comme école bi dafa am jafe-jafe ñoom dañuy dajale di cotiser am seen keesu bopp. mais est-ce que lool c'est pas interdit mon père. non c'est pas interdit. non noonu. non participation la. mais participation bi est-ce que c'est ça doit obligatoire. moom laa la wax bu dee élémentaire bi. waaw c'est pas obligatoire. mais parents yi ñoom ñoo daje. waaw waajur yi. waaw dal dinañu kat comme que am ay tolof tolof yenn saa yi ndox dina manqué. gardien duñ ko mën a. fay ak yooyu mais loolu loolu rôle état la. rôle état la. Ah, waaw mais di fay loolu nga xam ne. tey ndoy baan boo toogoon yow école élémentaire bi sa doom nekk. d'accord. télé laay waxee nga daal di jóg ne man duma ma fay lu jaadu kenn mënu ci dara li nga xam ne jaaduwul mhm. su ko ñëpp doon defit mhm. du tax mu jaadu mhm. c'est pas normal école privée état bi moo war a defar ndox ma war a defar miir ya uh-huh. war a defar classe indi fa tablement et tout parents d'élèves yi waruñu leen laaj benn élève waruñu koo laaj suy dugg ci école bi inscription dañ koy jox dix mille francs man mën naa ko mën yow mën nga ko mën Eva mën ko mais soo demee suñu dëkk am na ci parents yoo xam ne dix mille francs ñàkk guñ ko ñàkk bu mu demee inscrire te soo demee ci école yi dañ koy nappee di leen ko exiger ba tax sa doom nga téye ko mu jàng loolu état bi da ko a xam xam ne dans les régions loolu ñu ngi leen koy tënk mais loolu tamit yéen parents d'élèves war ngeen ko mais li nga dëgg la léegi man sa sa méthode uh-huh. daf ma xaw a jaaxal nag en tant que parent d'élève ndax mm-hmm. mel ni da ànd ci loolu te mm-hmm. école publique du école privée su doon mm-hmm. école privée ñu mën koo laaj mais même su fekkee 1000 francs la kenn te war laaj 1000 francs pour école bi mais nooy ban xam nga li ma wax léegi lu leer la waaw nee na l'éducation elle est bu dee école publique dafa gratuit waroo fay dërëm waaw waaye nag dañu toll jamono joo xam ne jii état bi budget bi mu ñëw di ko mettre à la disposition des des des écoles dafa néew d'ailleurs boo ko seetloo sax ci secondaire bi moyen secondaire bi mhm. loolu ñuy jagleel muy muy jóge ci budget budget wu état pour ñëw yenn saa yi dina dem ba yenn saa ay mois de mars avril c'est vrai ce qui veut dire que cotisation moom mooy prendre en charge presque dépense yu bari ah. mais li nga wax principe bi moom mooy l'éducation elle est gratuite tey boo demoon école élémentaire nga yóbbu sa doom taxaw ne da nga koy inscrire mu inscrire ba pare ñu ne la cotisation wala wala frais d'exception nga ne du ma fay kenn mën na ci dara. mais est-ce que xam nga baal attends lii dafa grave est-ce que waaw dafa grave mais dinañu indi aussi ay uh-huh. leeral parce que bëgg nañu xam. Uh-huh. xaalis boobu ngeen di cotiser noonu. Uh-huh. am na yeneen fin aussi yu mu mun a jublu j'espère. parce que léeg-léeg y a des parents qui peuvent se retrouver dans des situations. difficiles inconfortables lu ñu bëgg détaillé wu wax seen bopp. xanaa mhm. kees boobu dana mhm. servir aussi d'aide à ces parents là. Mhm. waaw mooy lekk ci xaalisu conseil de gestion boobu. lu wax Eva da ngay gis école privée boo xam ni. la fa nekk mot na deux mille élèves. waaw deux mille ku nekkee dix mille la ci xaalis. ça nga ci vingt ci waaw mais vingt millions école boobu ku fa war a dem war ku fa dem ku fa dem war faa gis loolu lu la jombal. loolu mais da ngay cotiser élèves yi dañuy cotiser ku ne dix mille. ci inscription bi. ba pare li ma soo ñëwee école ba toilette revenir dara. man li ma bëggoon mooy nga laaj ko. xaalis boobu. waaw ci lan lay dem exactement. voilà dañuy wax ci fonctionnement école bi lay dem. Mhm. maanaam miir bu daanu. Mhm. toilette yu baaxul. Mhm. jënd ci yenn affaire yi nga xam ne yooyu dafa manqué. loolu du parent d'élève bi wala élève bi moo ko war a def. élève bi dafa war a toog école publique la nekk état bi moo ko war a defal dara mu ñu war a ñëw rek dafa war a ñëw rek indi ay kayam. inscrire toog jàng. mais li nga wax dëgg la d'accord nañ ci. waaw mais loolu xeex leen ko nag yéen que yéen parents d'élève da ngeen a ànd ci affaire boobu dafa mel ni xanaa wala boo vingt millions yi da ngeen cee am yéen parents délai ah mais parce que. ah <laughs> loolu loolu moom c'est très grave li nga wax. mais lii may wax nii. yé yow dama la bëgg a expliquer rek. xam nga il faut nga déglu nga wax de union nationale des parents d'élèves. Mm-hmm. moom nga wax. Mm-hmm. c'est national. Mm-hmm. te lii nii li ma lay wax nii soo demee daa man dakaar wóoru ma. mais man gox yéem a dëkk. ak ya ca ginnaaw. lii moo fa am. su école ubbee moo xam sayam yi la. moo xam lycée yi moo xam école primaire yi da ñëw war a inscrire ñu laaj sa doom dix mille sa baay di baykat euh, li ngay li ngay wax ni li ngay war a nekk la li ngay wax ni am na am na solo uh-huh. Eva mi ngi nuyu bu baax waa uh-huh. Pendasta Mode uh-huh. ci kanam ci ñoom laa jëm mais dafa am beneen cas doyen ah, ah très bien nanu nanu jël ki ci ligne bi ma dellu si ci xale yi nga xam ne mairie daf leen di supporter ba pare jël leen jox leen bourse mais mhm. du am sax lu ñu inscrire. Mhm. allo. Mhm. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu. na ngeen def. bisimilah ñu ngi fii. waaw ma Eva. naam. man de ci seen euh, thème bi rek laa bëggoon participer tuuti en tant que parent d'élève. ah très bien bisimilah. Ah. xam nga dañuy wax ne lu euh, ñu wax mu ne état bi moo war a lijjanti école yi dans l'ensemble. mais moi je trouve que parent d'élève bi tamit am na ci. moom man bu fekkee ci loo mën la du nekk loo xam ne ko exiger nit ki mais loo mën rek sa mhm. mhm. a am si association parents d'élèves une caisse boo xamante ni bii Mhm. dina am ay di petits détails ci école bi loo xam ne am na importance par exemple toilette après toilette si ngeen di wax. Mhm. ak recruter gardien gardien kuy mhm. nettoyer école bi. ak salle de classe yi. koo xam ne même su état bi loolu yëpp état moo ko en charge xam nañ parce que ñu njëkk a jàng mu njëkk génération yu màgg da ngay da ngay màgg fekk sa école am gardien. am sax infirmière boo xamante ni bu la dara jotee. Mhm. balaa say mbokk di ñëw wala bu nekkee lu ñu mën a faj la ci école bi ñu faj la ba pare soog a woo mhm. kenn ku si war a topp mhm. mais ci kees yooyu bu ñu dajalaatu bu ñu xeeb cinq francs parce que waxuma sax dans les régions mais même dans la banlieue par exemple Dakar Ouest am na moom boo leen ni woon jox leen ma mille pour inscrire sama doom xëy dañuy am problème mais au a nekk ay forfait yoo xam dañuy imposer dix mille francs la presque école yëpp généralement dañuy am di association de parents ñoom mën nañu di xam ne lii la am. Mhm. en caisse. Mhm. mu am yoo xam ne nga ne buñ leen croiser bi ma def. du mhm. sotti. dëgg la donc képp ku ne ku xas ba am doom ci école yi ba même fa amul doom sax. mas nga faa jaar wala mas nga am départ wala sëgg fa mas a jaar. xëy na nga jàpp ci rek dans dans la xam ne naturellement dëgg bu ñu ko dajalee dina nekk xosam moo xam ne mën nañ ci raxas école bi nettoyer classe yi. Mhm. defaraat ay toilettes ci daam defaraat robinet fay ci sax un gardien bu ñëw di toppatoo école bi xamul fa nekk ak fa nekkul. Mhm. mais état ko war lépp ku xam na ni mënu ko. Mhm. wala bu ko mënee boobu bon xëy na dafa am ay limites ak fu mu koy yemal. donc bu ñu doon croiser le bassin par naan état bi état bi du sotti. dëgg la lépp la li war a fi wax rek moo ne yàlla yàlla béy sa tool. dootoo mm-hmm. ne yàlla baax na di xëy toog da ngay xëy toog daal di liggéey wala nga jaay wala nga def dara. dafa mm-hmm. te même chose bu fa xasee am nit rek wala bu nekkee ci sa quartier rek am nga ca part. d'accord parce que boo demee si dëkk yu développé nga xam ne seen nañu en général seen éducation dañ ko teg ca kaw. Hmm. parents élèves yi yu am xaalis yi dañuy génnee xaalis di di subventionné école yi. dëgg la dëgg la pour bëgg rek école bi dox na mu war a doxee xale yi bénéficié wu ci. dëgg la ku ci def ñaar téeméer defal loo ko état bi sa doom nga ko defal wala sa mbokk wala sa très bien non moi je pense que parents élèves war nañu am kii boobu day noonu. Hmm. ci association yi ñu di ko waxtaanee parents yi mu nekk idée boo xam ne hmm. idée bu baax la man si suuf daal. ma ngoog. jërëjëf ba tey moom mi ngi ci defe tontu na la. man je suis ngi ci mi ngi ci ndoy baat mi ngi ci mi ngi ci dafay dafay <laughs> xëy na xëy na moom li ko gën a sonal. <laughs> sax mooy dafa bëgg a xam fu koppar gi du dugg. mais gis nga gis nga ndoy baan ci mm-hmm. at bi. Mm-hmm. da ngay gis koo xam ne day xëy rek nekk veuve. Mm-hmm. ah ndoy baat day xëy rek nekk veuve. ndekki xale yi war ko mm. yeneen ak yeneen war ko mm. nga gis association bu ni mel mm-hmm. mun na ci jël benn vingt mille francs ne ah nañ ko mm-hmm. jàppale diw parce que mm-hmm. jëkkëram dafa wàññeeku nañ yooyu ay situation lu ñëw dama bëgg leeral rek leeral leeral lan bëgg besoin femme bi li mu wax comprendre naa dëgg la bi ma posé affaire bu ndaw de waaw man du ma booy Dakar man booy booy booy dëkk balaa li may wax je pèse très bien am na ci parents d'élèves yoo xam ne seen ma doom jàngatul ndax rus naa dem école ndax moromam yépp dañoo joxe dix mille joxewul voilà léegi bàyyi ma tontu la xale bi arrêté foofu du benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon mhm. su deux mille élèves élèves bu nekk war a joxe dix mille francs mhm. dañ leen koy exiger mhm. c'est ça c'est vrai loolu kenn mënu ko weddi waaw dama bëgg tontu la voilà lu dëgg da ngaa bëgg mu leer na leer waaw waaw dama la bëgg a wax ne rek euh, dafa am benn décret parce que quand Euh, ni ko soxna si waxee maa ngi koy nuyu au passage parce que vraiment kii ku ko déglu xam ne c'est c'est une parente d'élève très avertie xam na du bul jàppane rek obligation bi moom mooy gratuité doo fay ba yow sa côté doo mën a ñëw jàpp ci ci la ñu dal di sosé benn décret 2337 moom mooy créer conseil de gestion yoo xam ne yi ci ci ci ci décret boobu parents d'élèves am participation boo xam ne bii dañ ko fixé entre 3000 et 10 000 war ko dépassé bu ngeen ko sosoo am na jamono yoo xam ne yi dangay gis école yoo xam ne ay lycée yoo xam ne dañuy dem bay demandé ay mhm. léegi 10 000 yooyu moom la ñuy participer dugal ko ci kees gi état bi dal di ñëw complété ak ay ressources additionnelles maanaam ku mel ni Ndoye Bane dëkk ci gox goxaan yi yàlla may ko teranga mu dal di ñëw dal di kat école ba la ma jànge woon ba am fa euh, teranga mën naa ñëw jàpp ci. donc kees commune la boo xam ne bii ku nekk dañoo dugal ci ñun it ñun way juru ndongo dinañ am lu ñu ciy dugal. te loolu ñu ciy dugal day am benn partie boo xam ne dañ ko benn pàcc bu ñu ciy jël dal du koy ber boo xam ne bii association parents d'élèves bi moom lay fonctionner. non man accepté naa loolu. waaw man d'accord naa man. man yooyu da dama gis naa ko chaque jour ngeen man fa ma dëkk. maa xam nga fan la méttee. mooy foofu ngay wax ñaare du am ay kuréelu way juru ndongo te ñun loolu la ñuy xeex. dañuy def dañu bëgg de telle sorte que école bu nekk ci Sénégal mu am au moins association parents d'élèves boo xam ne bi dina war a mën a toog comme jafe-jafe yooyu bu amee bu ñu organiser woo di mën a jàpp jàppale ñi nga xam ne dañoo néew doole parce que ñëpp bokkuñu ñu jël ñu jël téléphone bi mhm. salaamaaleykum waa régie madame Ndour nuyu nañ leen salaamaaleykum mbokk mi allo allo allo salaamaaleykum allo oui allo man la Ndiara Faye. Faye ñu ngi lay nuyu. président gestion école de Ngéfer. président gestion allo alo ah man maay euh, parent d'élève euh, de Ngéfer. ñu ngi lay déglu. allo. ñu ngi lay déglu wàññil wàññil télé bi ndax ñun ñu ngi lay déglu. bu baax non télé bi fay naa ah d'accord. boucher tuuti rek wax moo faible kay ma ne waaw man euh, maay président gestion école de Ndiéfène d'accord damay déglu seen émission déglu Ndoye Bane ak président boobu d'accord inscription xam nga li tax ba fii ci kaw gi mënul ñàkk mhm. mooy waaw besoin école daaw état presque joxewul dara ci àll bi fii soo bëggee fay lo waaw désherbage yu ren gis rek on a fait cent cinq mille pour désherber école bi su fekkoon ne amuñu woon inscription nan la ñuy désherber école bi fa xale yi dugg bi de état bi état bi état état dañuy wax rek état n'a rien fait pour l'école d'accord dara li ñuy joxe doyul motul sax besoin bi motul sax trente pour cent des besoins mhm. soo deful inscription nan ngay fonctionner ak école bi man je suis le président de parents d'élèves ici très bien maa ngi leen di déglu ci télé bi mhm. mais bi ngay wax ak président boobu vraiment def maa étonné sax parce que bu nga xam na li ne ci école école. Mhm. très bien mhm. du ñàkk euh, ñu jëlaat mhm, keneen ku ci gànnaaw madame Dour bu amee kuy fëgg ñu may ko mu wax xalaatam eh waaw bien ah. ñaar ñi woote ñëpp comprendre naa li tax ñu li ñuy wax xam naa ni école bi soo ubbee état école bi parent yi defuñu ko fa. Mhm. état wu Sénégal moo fa def école. effectivement. Mhm. bu fa defee école indi leen ay jàngalekat. Mhm. école su waree ubbi. état wu Sénégal moo war a créer bi def benn campagne boo xam ni dañuy bay école yi def ca la ca war balaa élèves yi ñëw loolee nag nga xam ne moom la ñu war a financer pour pour pour defar tablement yi pour bay école bi pour pintuwaar école bi maanaam def la fa man yëpp du parents yi ñoo ko war a ñoo ko fay tuddatul école publique dëgg la nañ ko tuutee beneen tour bu dul école école école école école école mhm. publique mhm. voilà man côté boobu laay waxee mhm. te encore beneen bi mooy soo demee dans région def leen ay enquête dañ koy parents yi ba tax na am na ay xale yoo xam ne jàngeetuñu mhm. ndax dix mille francs boobu ñuy laaj élève bi mhm. su fekkee sa baay dafa yor juróomi doom mhm. cinquante mille la xam nga mooy ah, xam nga chaque élève dix mille francs pour inscription soo ci amee juróomi doom cinquante mille la mais soo ko amul nag nooy def xam nga foofu laay waxee moo tax ma ne souvent bu fekkee ne école bi euh, kii woote léegi ñu ngi koy nuyu au passage parce que quand même moom dafay vivre réalité bi si le terrain effectivement état bi budget bi nga xam ne daf ko war a alloué école bi souvent bu bu fekkee ne dina am sax day yéex a ñëw mhm. ça veut dire que bu école ubbee rek li ñu li ñuy fonctionné ñoom mhm. bu ñu toogoon di seetaan naan dañuy xaar état bi kon école du ubbi mhm. li ñuy fonctionner moom mooy les dix mille francs laay li ñuy dajale dal di koy mën a defaree. très bien ñu ngi nuyu xale yi. Mm-hmm. ndax ñu ngi wax ndoy baan na la jàmm sonal. Mm-hmm. keneen nee na moom daal dix mille francs yi xelam mm-hmm. nangu ko. Euh, keneen na euh, soxna Fatima moom ñu ngi koy nuyu ma ngay bindee depuis. Euh, la Mauritanie. waaw mu mel ni leeral gi ngeen nekk nii def ci am solo. non c'est d' ailleurs dem nañu benn année temps yi Serigne baytaam moo doon ministre euh, mhm. de l' éducation nationale bi ñu demee ba mbir mi tar ba sonal leen dañu ne dañ koy dañ koy ta ta taalal ba ba décembre mhm. parce que xëy rek dal dina exiger ne dañuy ubbi ku ub ku duggul classe doo fay dix mille francs kooku amul fen foo xam ne bii war nañ ko exiger te ñun en tout cas UNAPES fu ñu ko déggee te ñu remonté ñu ko ñun dinañ ko dox parce que loolu c'est pas normal la 10 000 yi ñuy laaj. Oh, non non dama ne ouverture des classes am na ay ay am na ay écoles yoo xam ne ouverture des classes dañu ñëw rek dañu ne ñu ne takk rek ne boo joxul euh, sa 10 000 francs duñ la yóbbu ci école duñ la yóbbu ci classe. alors que c'est pas normal ah boobu am na moratoire bu ñuy mën a teg ba décembre. Mhm. même boo fekkee mënoo ko. Mhm. nga jéem a seet noo koy defee di ko fay ndànk-ndànk. mais li nga wax nii dañoo war a def ku mën ku mën 10 école bi nga mm. def. ku mënul nga bàyyi. amuñu droit di ko exiger kenn. mais nag yaa daf xam nga loolu aussi nañu waxante dëgg dañu nekk ci réew boo xam ne bii dafa xaw a néew doole. Mhm. parce que ñun bañ see toll ñun ba ñuy nekk tout tànk di jàng ci école yi mais ñun dañ daa dem lycée non seulement dañu daa jox bourse ba pare dañu daa dañu daa jox di leen ravitailler ak ravitailler jox ñu fourniture ba mu mat. waaw toll nañ nag jamono yoo xam ne yi loolu amatul yooyu amatul. waa léegi nag tey jii sa parent d'élève bi am juróomi doom. Mhm. nga laaj ko ku ne dix mille muy mhm. cinquante mille mhm. te euh, kii amul ñëwagul kaye ñëwagul fourniture yi ñëwagul mhm. transport ñëwagul am na ñoo xam ne ci àll bi li ñuy jógee di ñëw di jàng si ci ville bi parent boobu juróomi doomam yi nga bëgg ko laaj ku ne dix mille loolu loolu wax dëgg yàlla man man pour man sedd de l'arnaque xam dañuy arnaquer parents d'élèves yi non arnaque c'est trop dur mais c'est assez de l'arnaque non c'est trop dur école publique kaay jàng te doo fay dara waaw ñun la balaa sa doom jàng il faut mu joxe dix mil fu ko teg te xoolal télé la ñu nekk su fekkee lii may wax amul nañ génn nañ woote te demantir ma dañuy dàq sa doom ndax 10 millions yooyu. doy baax nee naa ne fu ñu fu ñu fu ñun fu ñu déggee na dàq nañu un élève. ñu di dàq de. te mu versé te te warul versé 10 mille francs bu ñu ko yëgee ñu dinañ ko wax. voilà. waaye nag problème bi moom mooy. bu dee élémentaire bi moom c'est gratuit. Ah, bu fekkee ne mooy so non non c'est important moom nekk na débat. Mm, c'est c'est une ah, question très importante bi nga ah, posé. ñu jël ñu jël ki ci ligne bi ba xam luy xalaatam salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. soxna si ñu ngi lay nuyu te di la ziyaara. alhamdulilah ñu ngi leen koy delloo. ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu Ndoye Bane ak euh, seen invité bi. très bien kontaan nañu. ñu ngi wootee nag New York ñu ngi ba New York City di seetaan wareef bi. alhamdulilah. bon séjour. waxtaan wi rafet na. ñu bëggoon indi suñu xalaat. yéen rek la noo déglu. ah soxna si dama dégg léegi ci li Ndoye Bane di wax muy mbiru cotisation yi dix mille francs bi. Mhm. te mu nekk école publique. Mhm. ma am rek lenn loo xam ne bëggoon naa ko ci indi muy gis nga fii ci New York ak Covid 19 bi. Mhm. dañoo tëj école yi xale yi di jàngee ci kër yi. dëgg la. mais jëf nga li nga xam ne dañ ko waroon dundalee xale yi ci biir école bi dañ ko def ci carte tey jox leen ko mhm. ñu koy dundee ci seen biir kër yi ñu wan leen rek ni ni ñu respecté xale ak ni ñu respecté seen ak ak li ñuy yelloo <coughs> lim doy ban wax dëgg la biir Dakar nit dina ndékkee dix mille francs mu yomb trop yow mu génnee ko joxe ko pour doomam waaye boo demee ci biir àll ba ci ginnaaw mhm. seet leen lan moo fay xew dix mille francs lu rëy la foofu. Mm-hmm. dëgg mm-hmm. su ko defee nag cotiser xaalis te gouvernement sant la ko loolu du yoon te ne waruñu rek ba Sénégal ñuy toog rek ne ah lii de moo fi am lii moo fi am nañu am vision nañu am vision di jéem a avancé jéem a seet nan la ñuy ba école bi du yàqu. Mhm. wala école bi di du yàqoon ñu teg fond boo xam ne soxlawul ñuy cotiser dafay fond bu available boo xam ne daf fi nekk waaye Sénégal dañ naan ndogal yàlla rek ndogal yàlla wala lii moo fi am dañ daan sama maam da daan cotiser dix mille sama di ko cotiser man dama ko war a cotiser dañuy seetlu avancé dëkk bi am ay vision mhm. Ndoye Bane li mu wax dëgg la mhm. xaalis boo xam ne gouvernement néewu la euh, cotiser ko parent d'élève bi ñëw ne la cotiser ko wala directeur école ne la cotiser ko xaalis boobu fan lay jëm ak lan lañ ci def li moo nekkoon suñu participation nañu wut vision jaadu na jaadu na mhm. Mhm. jéem a avancé am am jéem a avancé c'est vrai jërëjëf très bien ñu ngi lay mhm. souhaiter excellent séjour ñaan yàlla mu defal jàmm sénégalais New York yëpp ya nekk états fu nekk ci àdduna bi macha allah mm-hmm. mm-hmm. xalaatam la joxe. dëgg la li bokk na mooy li ma wax sànq ne bu nu duggee ci Facebook bi. Mm-hmm. xale yee ngi naan waaw waaw ndoy baan fi nga teg sa loxo. foofu la ku ci mel ni Eva mi ngi xalaat ne nit mën na xëy sax ñàkk jëkkëram am yeneen ak yeneen yuy xew ñu war ko jàppale ci sutura kii itam woote wax xalaatam loolu mooy àdduna mais euh, soxna si euh, li mu wax dëgg la parce que defe naa ne ñëpp ànd nañ ci. Hmm. ne école publique. ba ñu nee public rek public la mu ngi mel ni ñu ne jardin public. dëgg dëgg nag ku dugg ci jardin public doo fay. c'est vrai ah. école publique. ñu jëlaat ñu jëlaat ah. keneen. Ah. ah parents yee ngi réagir de allo. allo madame. monsieur. allo madame man la Birane Ndiaye. Birane Ndiaye. Ndiaye waaw. d'accord élève bi dana ñëw école tijji bu cotisé wul dix du xam ban classe lay jàng. Mhm. effectivement je l'ai dit. Ah, waaw te loolu jaaduwul. élève bu ñëwee war nañu affiché liste yi mu xam classe am. Mhm. mais dañ laa impérativement boo cotisé wul dund Pikine Est bii dañ koy def. Mhm. bi xam na ko. loolu dañ ci war jël ñu réglé ko. je suis d'accord avec Ndoye Bane. matelas bi ëpp na. bu am cinq élèves cinquante mille nga ko bu ñu cotisé wul duñ xam seen classe pour lan. dañu affiché sax liste classe bi. jafe na jafe na duñu ko sax affiché. l' inspection est complice. bi ñuy def teguñu ko fenn. l'aide l'aide l'enseignement public est gratuit. l' état les subventionne. Mhm. d' accord nañ sax ñu in ñu fay. mais nañ leen defal moratoire. Mhm. may leen ba décembre. Mhm. par exemple mais 10 000 francs lañ décrété force. waaw duñ ko teg. le ministère de l' éducation ne travaille pas. je vous nous vous remercions aussi mhm. monsieur jërëjëf réaction yu mel nii dañu koy soxla parce que dana tax ña nekk ca yenn bërëb yi xam nu noo doxalee xam nga ñun boo gisee boo gisee ñun ñu créer sunu structure bi waaw lii moom moo tax Mm-hmm. di ci sant yàlla bu baax di vraiment. Mm-hmm. di gërëm parents de l'élève yi nga xam dañuy intervenir directement. très bien parce que comme ni ma ko waxee ñu ngi nekk ci base bi ñun ñoo koy dund. baax na sànq wax naa ko. doyen baax na bu doon sondage. sànq sànq wax naa ko. bu doon sondage ñu xam. justement lan la nit ñi xalaat réellement. sànq wax naa ko léegi bi may tàmbali. waaw wax naa ne am na école yoo xam ne yi boo ñëwee boo joxewulee duñ la wax sa classe. loolu am wax na looloo am mais est xeex ngeen ko parce que mosuñu leen cee dégg daf mel ni da ngeen noppi rek. Euh, mosuñu leen ci dégg parce que mosuñu leen ñu jëkk invité c'est ngeen invité ñu dégg leen ngeen koy dénoncé. yàgg nañ ko dénoncé ba ah. pare agir ci parce que am na décret bu ñu wax décret mm. boo xam ne bii depuis daaw mm-hmm. ñun yàgg nañu dénoncé moom mooy conseil de gestion yooyu ngay ñuy wax. fonctionnement bi parce que conseil de gestion yi ñuy wax. li am na ku ko wax. li état bi jël di di di di di di di ci participer ci éco lycée bi wala CM bi dafa néew par rapport ak parent d'élève li mu ci def parent d'élève li mu ci def moom moo ëpp. premier première considération bi ci conseil de gestion bi. da ngay dem ci école bi allo allo téléphone encore. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. sant yàlla bu baax di kontaan. ci seen woote leen di jaar lu bari. ñu ngi leen koy delloo macha allah. macha allah ça va bien waaw dama doon suivre sen émission bi. très bien. Euh, vraiment c'est intéressant. Mm-hmm. alhamdulilah. Euh, féliciter leen d'abord. merci. mais juste euh, dire que de Kédougou hein. très bien. alors mais c'est juste dire que je suis en phase avec l'ancien Ndoye Bane. parfait. que tout simplement. Mhm. Euh, gis nga l'association des parents d'élèves ñoo war a am benn organisation. Mhm. Mhm. parce que pour régler le problème de l'ancien Ndoye Bane. amul fenn fu ñu bind texte. ne xale bi bu joxewul du jàng amul. amul fenn amul amul. amul ci benn texte bu ko joxe. amul fenn. maintenant bu fekkee parents yi nag ñoom d'accord nañ ñoom. di accepter seen mboroomu parent d'élève seen doom di bañ a jàng parce que indiwul dix mille c'est à leur niveau ça c'est le premier aspect non dañoo xamul de xamul affaire bi du yoon deuxième chose mooy gis yi ni muy demee au niveau des écoles mhm. parents d'élèves yi quelque part dañoo démissionné parce que ñoom ñoo war a toog ci biir école bi di encaisser xaalis bi mais waruñ ko bàyyi entre les mains des autres c'est mhm. donc bu fekkee parents yëpp ñëw nañ toog au moment des ouvertures ñoom cas sociaux yëpp xam nañ ko parce que seen biir. <coughs> am na ñu mun a koo xam ne sa papa wala sa yaay loxoom jotul gannaawam. war nañ mun a comprendre ne kii mbokkam wala kilifaam bi jotul gannaawam donc kii nañ ko bàyyi nañ ko may wala nañ ko ko wàññil mu ñëw toog parce que xale bi aussi problème mu 10 000 francs warul tax ñu priver l' enfant. d' aller à l' école pendant je combien de temps wala pousser xale bi ba xale bi di bàyyi parce que tout simplement papaam amul mm-hmm. non warul nekk facteur d'abandon pour les enfants mm-hmm. moi je suis un enseignant mais je dis que parents d'élèves yi nañu organiser wu waat maintenant par rapport au budget que l'État a mm-hmm. ça fait presque léegi tey ñu toll presque deux ans amul benn budget de fonctionnement dans les écoles donc parents yi aussi dama leen di nangul ñuy dajaloo seen biir waxtaan ne ku nekk sa fukk fukk saw juróom fukk saw juróom fukk nañ ko dajale pour bu ñax amee ñu mën ko dindi bu facture ndox ñëwee ñu mën koo fay en attendant le budget de fonctionnement de l'État mhm. parce que budget fonctionnement état bi aussi dafa am ay lignes yu ñu autorisé mhm. budget bi bu accès dafa am fu mu jëm mhm. boo ko jëlee foofu yóbbu ko feneen yoon dal sa kaw te bu boobaa macha allah ñaanaluñ ko kenn donc vraiment c' était une defe naa ne mu ngi leer. Hmm? waaw mi ngi mi ngi gis nga maanaam mu ngi lay man tey dama kontaan. nee na defe naa ne mi ngi leer. non dama kontaan Ndoye Ndoye Bane wax dëgg yàlla dama kontaan. ndax mhm. ndaxte lii moom mooy suñu xeex. ah d' ñun boo gisee ñu ñëw. sos kuréel bu mel nii. Mhm. dëgg la c'est par devoir de reconnaissance. Mhm. parce que tey jii à commencer par le président Macky Sall. Mhm. ñoom ñëpp c'est des produits de l'école publique. am na lenn loo xam dañ ko war a delloo école publique bi. te muy dëgg. wax naa ko sànq ci njëlbeen gi. ñun ba ñuy jàngat bay lycée dañ daa jox bourse dal ñuy jox fourniture. ba ñu desee bay maye. njóobeen du yokk ci foo xam ne fii. état état bi comme ni mu ko waxee. <laughs> ci ci téléphone depuis Kédougou. très bien kii xam na système bi vraiment euh, parents yi ñoo war a gën a organiser wu. Mm-hmm. ah man nag am na jëw te dañuy ñaan tous les parents de ñu organiser wu. pour mën a dugg ci association de parents d'élèves yi. bu ko defee jafe-jafe yi yëpp ñuy war a mën a taxaw xeex ko. parce que man sama rêve moom mooy ma xëy benn jour ñu dal di ne bu subaa Sénégal kenn d'accordul ci lii bu subaa bu kenn jàngi bu ko defee par benn benn élève du jàngi. très bien mhm. que nag amuñu doole ji ñu may wax dëgg yàlla ñu mhm. mën a actionné. ñaata association parents d'élèves moo am. mais Ndoye Bane am na lu may dégg de am na fii de ku ne certains directeurs d'école. chaque début chaque début d'année ñu changé ay meubles grâce aux inscriptions. mais sax xanaa kii waxu wax nii gis nga point bi ma laal nii. Mhm. mën nañ cee émission bu. non émission la émission la parce que arnaque moo am ci école publique bi. xaw ma ndax état xam na ko bàyyi ci di di mel ni ku déggul. parents d'élèves yi xam nañ ko. ña jàngale xam nañ ko. directeur d'école yi xam nañ ko. vingt millions deux mille su dee dama wax dama kii nii rek ko deux mille élèves. élèves bu nekk joxe dix mille francs. vingt millions vingt millions tabax na école bu bees. ah bon ah, tabax na benn CI CI ak. am na am na aussi am na aussi keneen kuy wax nee na. ndax ci xaalis boobu bu xale amee. bu xale gaañoo wala mu feebar. si ndax dañ ko ciy faj. man damay bëgg a xam ce que école yi nañ leen. est que assuré nañ leen assuré élèves yi comment ça fonctionne. xam nga loolu comment ça fonctionne monsieur Fane aussi mën nañ ci tontu. kooku tam xale day tarxiis école damm. xam nga ci conseil de gestion bi et souvent ma yokkal la si si conseil de gestion yi nekk ci moyen secondaire yi. waaw rubrique boobu nga wax am na ci. am na rubrique pour AS. AS mooy association sportive. maanaam seen maal wàllu UASU yeeg seen sport yeeg yëpp dafa am rubrique am na rubrique effectivement pour euh, en cas d' accident parce que assurance am na. Mhm. assurance am na mais foofu loolu nga laal dafa am solo. Mm. dans la mesure yenn saa yi xale boo xam ne bii mën na damm. pour assurance bi prendre ko en charge sax surbrui bi c'est un problème et autre chose monsieur Fane c'est un bi mën na damm au sein de l'école mhm. du ñu xam ne ka mhm. jàngal mhm. mën na bañ a yëg ne damm te daf ci war a intervenir ci war a ce qui veut dire que rubrique yooyu ñu wax léegi yooyu yëpp dafa war a am ci euh, budget conseil de gestion bi bi nga xam ne bi chaque fois bu amee tolof tolof ci école bi dañ koy dañ ko ciy génne dal di koy saafara damay revenir encore li indi jafe-jafe yi yëpp mooy waay parent parents d'élèves yi nañuy dugg ci association yi. allo fi nga dugg nag am na solo trop ndax ñoom Eva Tra yi fàq la ñu def. waaleykum salaam. allo. allo waaw Wareef ñu ñu ngi lay déglu bu baax. tata salaam. Euh, damay bi. Mhm. allo. allo ñu ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg parfaitement bu baax. waaw d'accord ok par rapport ak euh, affaire éducation beeg xale yi. Mhm. man ça m'interpelle pas parce que maa ngi woote extérieur sama doom bi yëpp la ñuy ah très bien mais c'est plus euh, première auditrice bi ba mu wootee wax. ni li quoi que fii nii da ngay gis ni allo. na ko dëgg la. allo àggalil àggalil maa ngi lay dégg. waaw c'est juste pour dire que allo. maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. waaw ñun fii parents d'élèves bi li ñuy li ñuy fonctionner école publique bi waaw boo ñëwee nga inscrire nga fay. waaw loolu rek ngay fay mais tout ce qui est parents d'élèves. waaw tout ce qui est parents d'élèves. bu ñuy am lu ñu war a mën a laaj wala quelque chose ça va être des campagnes de financement. Mm-hmm. comme par exemple ñu jënd ay. Mm-hmm. allo. allo alo bu dee da nga am tele nga wàññi ko ndax nga mën ñu dégg bu baax. tele bi fay na waaw nga ni nga ni waaw. donc c'est juste pour dire que tout ce qui est euh, euh parents d'élèves yi mm. le fait de demander xaalis bi xaalis bi ñëw ñu laajte xaalis c'est pas normal nan la ñu mënoon def pour aider école bi mm-hmm. def ay campagne de financement mm-hmm. comme par exemple école exemple ma joxe école école bu tudd école doy baan ñu ne ok décembre bi école bi soxla na un budget d'un temps mm-hmm. ñu jël ay t-shirt wala leen imprimé ko ñu ah ñu koy jaay xale bu nekk mm-hmm. Mm-hmm. li ngay wax yépp ñu ngi koy dégg voilà c'est ça ñu ngi baax bu baax bu baax pour aider école bi noonu la ñuy fonctionner ay campagne de financement la ñuy def. Mm-hmm. bu ñu nee ok euh, école bi soxla nañu gouvernement bi sauf que loolu yëpp gouvernement bi moom à à la clim moom loolu moom gouvernement bi moom moo war a joxe les subventions qu'il faut. Mm-hmm. parce que tamit nit ñi dañuy liggéey ah di fay ay taxes ay impôts. Mm-hmm. gis nga la mu wax fooy li mu waxee fii. neen dañu war a def ay campagne financement. gis nga li mu wax foofu jàppale école yi ñu ngi koy remercier bu mhm. baax. je suis parfaitement d'accord gis nga Eva ñun dañoo dëkk ci dëkk yi. Mhm. sunu élèves yi dañuy joxe ku ne dix mille pour inscription. Mhm. ku ko deful soo moytul doo jàng sa jàng fa yëpp. ñoo maa rax ci dolli benn affaire. wax ci seen fosco yi ñuy organiser souvent. Cosco yi wax dëgg yàlla mbaa du xale yi dañuy cotiser waat teg xale yi dañuy gis nga tey jii politiciens yi nekk ca gox ba. dégg naa monsieur le maire ba ak mënoon <laughs> waaw moom moom yooyu mënul ñàkk <laughs> mais. très maire ba. waaw dañuy bind lettre maire ba. bind mhm. lettre bonne volonté ci dëkk ba. c'est ça ñooñu jàppale leen dara ñu mhm. mën a organiser seen Cosco. Mhm. mais ana dix mille lañ cotiser loolu lu teree ñu tibb ci dix mille yooyu ñu cotiser woon. organiser booy yi xale yi seen seen seen fête. des fois tey ji nga gis ay club anglais club allemagne nangam nangam dañoo bëgg a def lii dañoo bëgg a def sortie dañoo war a def nangam nangam dañuy dem ci bon volonté yi ci dëkk bi solliciter leen pour bonne volonté yi ci jox leen te pourtant cotiser nañu ba ñuy dugg ci école bi du ubbi cotiser woon nañu 10 mille élèves yëpp joxe ana xaalis boobu beneen bi mooy mbas mi nga xam ne moom lañ ñëw daaw jàng amul école yi seen cotisation daaw yi xaalis boob finance loolu ñu financé ana xaalis boobu daaw jàng amul maanaam jànguñu lu mat 6 mois. maanaam amuñu lenn lu ñu joxe waa école ubbi na. xale yi cotisé nañ ku ne 10 000. day di école yëpp yi nekk Sénégal du xamoon ñëpp koy defam déet mais ñu ci bari. xaalis ba xale yi cotisé woon. Mhm. normalement war na fee ne ba léegi. te mhm. pourtant bi école ubbiwaatee fii nii nii dañu leen la laajaat 10 000 francs te parents d'élèves yi kenn kaasu. waaw ñu ngi kaas. ana xaalis boobu léegi. ma tontu la. waaw. ma tontu la. waa tontu. ñu jëkk ci Fosco. xam la mooy Fosco. waaw. xam nga luy Fosco. waaw moom laa leen laaj. luy Fosco mooy feetu xale yi ñuy def nii. Mm-hmm. Fosco mooy semaine semaine culturelle lay doon mm-hmm. moom moom moom tuddee Fosco. Mm-hmm. ñun ba ñuy nekk ci lycée yi dafa daa am ndax dafa am ku ne ci ligne bi ah d'accord. salaamaaleykum. Ah, ah, allo waaleykum salaam. allo. allo. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu yàlla sa gan sa ñi nga toogal Ndoye Bane ak mm-hmm. inspecteur. ñu ngi lay euh, ñu ngi lay fay ñu tamit ñu ngi lay fay. man maa ngi tudd Makhtar Diop. jëlee ko ci Thiès. d'accord. di parent d'élève ci CM dixième. Mm-hmm. Eh, may leen di di wax ne di ngeen émission ñu ngi ko rafetlu. Mm-hmm. ñu li ñu jaaxal mooy. waaw école boobu. Euh, comité de gestion bi ñun dañoo fay daw ay euh, assurance pour suñu élèves yi. waaw. élèves yi ba léegi amuñu carte ak mbas mi nu mu demee woon loolu muy benn point mm. ñaareel bi euh, ñun comité de conseil de gestion bi ñun parents d'élèves bi xamu ci dara te ñu ci boole même ren jii sax pour ñu tënd ko problème la woon. très bien. donc daal jafe-jafe yooyu ñun ñu ngi koy gis ci association des parents d'élèves yi. très bien. principal bi ci boppam. waaw ñun jëm nañoo ñu sax ci ay professeurs ña fay jàngale. Mm-hmm. même pour ñu def conseil de gestion bi principal bi dafa bañoon dafa lankoon inspecteur moom mujj wàññi loxoom pour loolu am. Mm-hmm. moom mu ne dafa feebar. <laughs> alors loolu daal nekk na ay problème yoo xam ne mu ngi ci CM10 ñoo defar miir bi même les anciens élèves ñoo defar ñoo defar miir bi moom mu ne luñ ko defar ci turu ah, ci parents d'élèves bi jafe-jafe yu bari am na fa ba nga xam ne li ngeen di wax nii. lu am solo la donc il faudrait que inspection ak ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves daal ak ministère de ñu gën ñu jàppale ci loolu. ndax seen dixième daal doxul fii ci defe naa ne. góom góom yaa ngi feeñ bu baax a baax nga ni yow daal da nga kontaan. <laughs> góom man dama kontaan. waaw mais mais nag père. góom góom yaa ngi ah, moo tax man avec le tout le respect. comité bi def gestion yëf bi ñoom ñoom. parents leen bi bokkuñu ci. soo demee soo demee ci lycée yi dafa am benn ku fa nekk ku ñu fal ku tudd intendant. Mm-hmm. Euh, l' intendant. moo yor lépp lu gestion ci ci koppar ak yooyu jëm yooyu xaalis boobu ñuy cotiser soo moytuwul moom leen mais parents yi dañoo ginnaaw dix mille ñu ngi koy laaj ñi di ko forcer nit mhm. dafa waroon am benn parent d'élève boo xam ne mhm. Mhm. école bi da koy recruter mu nekk fa xaalis boobu parent yi boobu dafa war a nekk en phase ak ak euh, parent d'élève yi am liggéey fa nekk c'est dafa parent dafa ñu war a jël benn parent d'élève boo xam ne peut-être un enseignant représentant nekk ci biir école bi di xëy di wàcc parce que en général intendant ba en général du dëkk ca dëkk ba. waaw dama bëgg école ba baax wala bu ñàkk baax yoonam nekku ci. Mhm. day xëy suba ñu jël ko un intendant bu dëkk caajaay. Euh, mhm. ñu affecté ko pire. Mhm. souvent soo amul loolu patriotisme. da da ngay def nag sudul noonu. man li may kaas mooy vingt millions. deux mille élèves élèves bu ne dix mille francs. muy vingt millions te du feeñ ci école bi. et puis ñu koy exiger parents yi. mais loolu laa xam te état bi waxu ko. ministre bi waxu ko amul benn loi bu koy war a forcer parents d'élèves yi école yi ñu koy forcer parent yi parce que yenn xale yi seen njàng di yàqu loolu laa bëgg a xam yéen parents d'élèves ban dox ngeen waaw dama bëgg rek ma ma tontu ci Fosco bi ba pare voilà ñëwal <coughs> parce que am na solo Fosco moom mooy <coughs> foyer scolaire mm-hmm. foyer scolaire dafa daa am benn local boo xam ne dañ koy prévoir ci benn ci ci ci ci ci lycée bi foyer mm. boo xam ne bii xale yi ñoo koy animé dëgg la malheureusement dañ ko dévoyé ba léegi Fosco dañ ko tuddee maanaam ab semaine boo xam ne bii ab fête la bind ay maire ak ay autorité ak ay yu kenn xamul dajale xaalis bi. di leeral ne nag aussi Fosco yi ma xam te te ma te ma te ma nekkoon euh, président APE liste élémentaire ak ak moyen ak sur particulièrement moyen secondaire day am subvention boo xam day jóge ci conseil de gestion bi di appuyer Fosco bi. Mm-hmm. foyer bi. loolu ñu yore ñoom ñoo koy gérer seen bopp xale yi. man mësuma d'accord ci jël benn semaine sax di ko organiser ay manifestation yoo xam ne mm. amul benn njariñ mm. foyer scolaire dafa war a dund am ay club comme ni nga ko waxee club anglais club littérature ainsi de suite yoo xam ne dafa voilà ay conférence yenn saa yi boo xam ne bii dafa def am ay ay lijaasa yu mag dal di ñëw dal di dellu ci école bi ñëw def exposé ñu man a considérer ne kii référence la nit ñi dal ci roy mm. fausse ko noonu la daa demee wàllu conseil de gestion yi ngay wax nag effectivement ni ñu ko organiser président wu conseil de gestion bi mooy proviseur bi wala wala wala wala principal bi. Mm-hmm. intendant bi comme ni nga ko waxee effectivement moom mooy gérer fonds yi. parce que nag budget li ñu naan unicité de caisse maanaam budget boo gis day am benn caisse mu ngi mel ni Sénégal rek benn caisse fi am. Mm-hmm. ñuy jël di génne di di di di dugal. Mm-hmm. intendant bi moom mooy gérer fonds yi. mais ñun li ma la doon wax sànq mooy ñun kaas nañ fi ba dal di fi def benn journée d'étude boo xam ne bi dañ def ay proposition ministère te décret bi nga xam ne moom moo créé conseil de gestion yi parents d'élèves amuñu fa doole xam nga ñaata lañu parents d'élèves yi mhm. deux association lañ fay doon ñaare élèves doon fa ñaar mais association parents d'élèves yi nga xam ne mooy association nationale yi mhm. ñaar ngeen noonu yow yow ak Badiane non attends Badiane école yi laa wax ak Badiane xam nga CM yi uh-huh. bu conseil de gestion amee parents d'élèves yi nekk ci conseil de gestion bi ñaar fay nekk représenté parents d'élèves gox gox loolu néew néew na pire bi nga dëkk rek CM pire ñu dal di ne conseil de gestion bu CM pire hmm. association parents d'élèves yi ko fay teewal <coughs> très bien parents d'élèves yi ñaara leen fay teewal mais administration scolaire bi yëpp muy intendant ay surveillant yaag ñoom ñëpp dal di fay nekk bu ñu ñëwee ba voté seen budget souvent baatu parents d'élèves dafay xaw a néew mais ñun xeex nañu ba dal di fi def benn journée d'étude ba actuellement du euh, décret boobu may wax ñu ngi koy réviser pour mën a dooleel jur bi nga xam ne moom day jël xaalisam li ci ëpp di fonctionner école bi pour muy muy muy mën a intervenir yi ñaata association parents d'élèves moo am Sénégal association nationale je veux dire deux associations nationales moo fi am muy FENAPES ak UNAPES waaw wax naa ko sànq ñun ñu ngi sosu juróomi at lañu am mais kële moo leen mag de Bodian kële 1967 1967 yi est si yenn saa yi ngeen da raag de non début bi jafe amoon na jafe-jafe da ngeen daan lu tax ngeen daan raag yi association yi xanaa dafa am ay kii boo nee raag moom raag mbir mbir mooy xam nga yenn saa yi ngeen da ngeen roofoo roofoo yu saf dafa am ay dafa am mbo am mu caat wala nu mu demee noonu ñun de amuñu mu caat moom léegi sama baat ca kaw état amul dara lu mu leen di jox ñun moom am nañu subvention subvention am nañu subvention wu cinq millions boo xam ne bii ah, moom mooy fonctionnel structure bi yëpp hmm. te yaakaar naa ne 5 millions wax dëgg yàlla une association nationale. Mhm. pour mu fonctionner na mu war a fonctionner. Mhm. wax dëgg yàlla day jafe. Mhm. amuñu siège ñu ngi koy lijjanti. 5 millions lañ leen jox par année. 5 millions par année. amu leen siège. amaguñu siège. amu leen foofu sax di fay 250 mille. amaguñu siège. ñu ngi yi fu muy jaar. Euh, fu mu jaar moom mooy ci fonctionnement wu suñu structure yi parce que dañu ay gox-goxaan ay coordination mooy banqaas yi ma wax ñaata yoon ngeen am 5 millions maanaam ba ngeen tijjee ba tey 2015 a ngay am 5 millions ba ñu juddoo 2015 la ñu juddu toog nañ fonctionné deux ans waaw yoo xam ne yi ak suñuy propre ressource d'accord ak euh, ñi nga xam dañuy baaxee dañuy jàppale ci la ñu fonctionné mm-hmm. loolu moom mooy sunu sunu su sunu kii li nga wax léegi sunu diggante la ak beneen kuréel bi mm-hmm. début bi amoon na jafe-jafe parce que ñun ci ñu bari ci ñun. dañ leen daan siis xanaa. dafa amoon ay jafe-jafe ci dégg-dégg parce que aussi mu ngi mel ni wujj rek wujj mais dem nañ ba fi mu ne nii wax dëgg yàlla. warul amatuñu jafe-jafe. dans la mesure où ñoo bokk voilà dans la mesure où actuellement ñun ñoo bokk vision. fa ñu jëm moom mooy jàppale suñuy doom. dëgg la je que doo jafe-jafe. amatu mais 5000 5000 subvention fee 5 yi laa xamuma fan lay dugg. Mm-hmm. ndax soo demee dans les communes parent d'élèves ya fa nekk ñoom ñooy seen ñoom activités yi ñoom ñoo koy. mais ñun dañu am ay coordination. waaw dañ leen di dañ leen di jàppale. ci dañuy am ay projet aussi pour installer ay ay ay coordination au niveau de départements. Euh, une organisation bi day def ay déplacement ay sorties mais tout ça c'est c'est budgété. Mhm. tey fi ma jógee nii maa nga dëkk bëtt Tëngéej bu fekkee ne dama war a déplacé wu dama war a mën a fonctionné wu. dañu am aussi dispositif informatique yoo xam ne dañu war a mën a nekk kii dañuy liggéey ak aussi ay organisation internationale te defe naa dinañ ci dinañ ci ñëw amu leen siège xanaa sa kër ngay sa kër ngay amaguñu siège présentement actuellement 2015 ba léegi waaw non barewul nag quand même yàggagul national des parents d'élèves waaw waaw loolu moo tax nag c'est la raison pour laquelle yéen ñii ñëpp ngeen war a ñëw dugg ci dooleel ñi bu ko defee mën a am ñu wax nañu waxu koppar wax mm-hmm. nañ ci lu yàgg mm-hmm. macha allah mm-hmm. te indi leeral dafa baax c'est ça daan nañu wax naa ko ca début bi dañ daan gis écoles yi am ay assistants sociaux am ay travailleurs sociaux am ay infirmiers léegi doo ko gis ci écoles yi da ngay gis jardin yoo xam ne dañuy gérer sax les tout petits mhm. mais doo ci gis infirmier tey bu feebar amee qu'est-ce qui se passe lan moo xew lan xalaatu leen tuuti ne da ngeen ko war a revoir xam nga mooy li ñuy wax rek ci dispositif bi nga xam moom moo war nekk ci école bi war na am gardien c'est ñu koy fay ñaare boo demee ci école élémentaire yu ci bari gardien yi xam nga lan moo leen di fayal produit wu cotisation parents d'élèves yi moo leen di fay mais am na ay am na ay gardiens yoo xam ne ay fonctionnaires am na ay yoo xam ne yi souvent yàgg nañ fa maire yi ñoom ñooy jël dal leen fay yóbbu mais gardien ya fa nekk yenn saa yi koo ci yaa mu dee ay gardien leen yoo xam ne sa waay paa bu màgget lay doon fekk ne 39 45. <laughs> waaw waaw ngeen teg ko fa mu yor jaase ne ko yatam. waaw balaa timis ñuy noddu gee nelaw na. Mm-hmm. yooyu gardien yoto gardien. et puis yéen bi lan ngeen wax ci école yi nga xam dañ koo jël def ko ay terrain football def ko ay fu lamb yi di en di di kenn mus ñu leen dégg. mais loolu ngay wax am na ñun dénoncé nañ ko ba tey. fan je donne je donne un exemple école Malick Sy. Mm-hmm. bi nekk fi booru RTS. Mm-hmm. mais ay écurie de lutte ñoo ko doon utiliser. lu nekk lu nekk école Malick Sy. écurie de lutte ñoo fa daa nekk ñu ñëw ba gis ko dal di koy wax jooytu ko ba mu jóge fa te effectivement loolu nga wax c'est vrai. kooku parce que xale bi bu fekkee ne da nga ko jël loolu xale bi bu fekkee da nga muy jàng bu gestoo à à à gauche di gis ay mbër yoo xam ne yi bu ñu bëree dal di am ay kii defe naa ne xalaatam fële lay gën a nekk que mu dal di jublu ci njàng mi. donc loolu yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy kii pour environnement scolaire bi aussi ñu daal di koy sauvegarder <coughs> am na leen lu ñu ci yokk loo xam ne lii pratiquement léegi nga gis école yoo xam ne li ko wër yëpp ay cantine la ay cantine cantinisation école yi bu boobaa xale yi jigéen ñi day xaw a yomb sax pour ñu mën leen a détourner parce que ñoo ñuy jaay autour am na nu muy demee mën na mën na jur yeneen la donc yooyu yëpp ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne yi mu ngi ci école bi donc école publique bi je crois que li fay jafe-jafe dafa bari dem nañu sax ba à côté de l' école am na benn décret boo xam ne bi dañ ne 200 mètres ak li ko wër sax waru fa am bay jaay cigarette. fu mu toll actuellement. loolu ba tey mu ngi fi yàgg na fa. ba tey mu ngi fi donc euh, je crois que ñun. moom laa doon wax léegi Ndoye Bane ñun juróomi at rek la ñu am ci dund. wax dëgg yàlla pour ñu dal structuré wu pour mën a embrasser lép li am jafe-jafe ci Sénégal. dafa xaw a doy waar. mais nag nañ nañ nañ nañ ñu quand même concédé que ne. wax nañu ba nit ñi duñu dégg. te c'est l'une des raisons pour lesquelles ngeen invité ñu. d'accord d'accord naa ni mais tey. xam nga mais tey jii tey jii association parents d'élèves est-ce que mm-hmm. cotisation yi nga xam ne moom la def ci école ba est-ce que amu ci ab part à mm-hmm. part. amuñu maanaam part bii. Mm-hmm. pour association des association des parents d'élèves la. part bii pour élèves yi la. part bii pour fonctionnement école bi la. est-ce que gars yi duñ ko séddoo noonu. su kooku moom dara man mënuma cee wóor dans la mesure où mënuñu dem di vérifier parce que dana dana leer ne ah. kuréel boo dem di nga fa gis ñoo xam ne ñii dañuy dañuy dañuy def naka su dul noonu mais li am solo rek moom mooy texte yi mm-hmm. am na ku nekk loo xam ne lii dañ la ko jagleel bu dee élémentaire bi c'est gratuit parents ñoom ñoo dajale dal di jëw di jàpp école bi dal di dox très bien rubrique yi nga xam nag yooyu ngay wax effectivement am na loo xam dañ koy dañ koy jagleel élève bi mm-hmm. bu ay accident amee wala yu mel noonu yoo xam ne ci fonctionnement wu conseil de gestion bi la mm-hmm. léegi lan mooy solution bi parents d'élèves yi dañuy gis ne élèves yoo xam ne tey jii dañuy wan lor mm-hmm. seen mu élève leen trompé mhm. ñu war na lor mhm. wala ñu trompé leen ci àll ba ñu war na lor mhm. ñu dàq élève bi ku jigéen ki euh, loolu ban taxawaay ngeen ci am yéen parents d'élèves ah, loolu loolu moom dafa dul yoon te loolu aussi bu fekkee dégg naa changé na hmm? keroog am na ku ko hmm? fi wax baan effectivement nee léegi dafa changé hmm? dañuy garder xale bu jigéen bi mu fexe ba jàng ba pare ay jàngam effectivement parce que bu njëkk ba bu daa am rek automatiquement dañ lay dax waaw léegi te souvent la fille n'est pas n'est pas fautive. Mm. donc kenn euh, isolé leen kenn mm-hmm. dootu leen effectivement. et puis léegi et puis léegi waxtu bi waxtu bi daf nañu c'est c'est maa ngi jégalu nag. tey non non man dama kontaan lan mooy nekk waxtu man vraiment bi ngay bi ngay tàggoo gars yi te kontaan nga daal ci ñu woote ñëpp. dama kontaan dans la mesure où man ku ma xam-xam ne j'ai pas l'habitude de jeter des fleurs. seen seen seen seen émission bi dañ koy déglu bu baax a baax day maa ngi la koy wax léegi ci njëlbeen gi le fait que ngeen décalé ko sax ba 14h30 pour nit permettre nit ñi ñu mën a déglu dafa am solo ñun nag dañuy yëngatu pour jàppale par devoir de reconnaissance te loolu ñëpp la war li ñuy euh, terminer rek mooy invité tous les parents d'élèves ñuy dugg ci association yi dooleel ko defe naa bu ñu ko dooleelee dina leen mën a permettre chaque fois bu ñu gisee ay jafe ñu jaar jàkkaarloog administration scolaire ba fa nekk muy école école publique wala mu école élémentaire wala moyen secondaire. pour mën a sukkandiku ci texte yi pour ñoom seen wareef ñu war ko mën a am pour protéger xale yi. par rapport ak euh, ñeneen ñi nga xam ne ñi ay agression extérieure yu mën a jël pour mën leen a yàqal seen njàng je crois que loolu laa doon wax vraiment di leen gërëm di leen sant et di souhaiter véritablement que jotaay bu mel nii bu fekkee ne amaat na dafa gën dina kii parce que li wane rek euh, mbir mi euh, njariñu équipe bi mooy intervention yi te leer na am na ñu bari ñoo xam ne bëgg noo dugg. te vraiment am na yeneen question yoo xam ne yi sax peut sou soulever wuñu ko. dinañu war a man a permettre parce <coughs> que buñ ko dal di kiiwee ci jotaay bu gën a yaatu ñu mën a jéem a set yan yan solution mën nañu ci mën a apporter. merci beaucoup monsieur Fane ñun tamit. kontaan nañu bu baax a baax mm-hmm. di la remercier liñ fi li nga fi jële yëpp nag boo demee tamit nga soumettre leen ko ñoom ñu xam ne réellement nit ñi lii la ñuy xalaat très bien doy baan merci beaucoup Eva ñu koy sant ko gërëm bu baax a baax a baax <coughs> ñi jéggulu ci ci ci kërën kërën geeg yooyu dañoo bëgg rek askan wi <laughs> mu leer euh, ñuy wax gouvernement Sénégal mu bàyyi ko mm-hmm. xel bu baax école publique yi mm-hmm. ndaxte am na ci école yoo xam ni la am escroquerie la xaw ma arnaque laa ko mën a wooyee parce que des parents d'élèves yoo xam ne ñoo xam ne am na ci ñoo xam suñu añee duñu reer ñu am juróomi doom yu nekk ci école bi nga leen laaj ku nekk dix mille francs loolu dafa métti ci su boobaa tuddutul école école publique te école boobee nga xam ne élèves dañuy joxe kenn ku nekk dix mille francs des fois douze mille cinq cent am na ñuy laaj sax ba quinze mille te soo ko joxewul sa sa doom du jàng soo demee ci école ba tey la école ba gën a feebar tey la toilette yi gën a salte tey la mire gën a xàppatiku tableau yi sax amuñu ko xale dañuy toog ay 4 5 ci ci ci table ba tey kenn ku ci nekk ba ngay dugg am na loo joxe loolu war nañoo def peut c'est entre 3000 et a def voilà 3000 et 10 000 hmm? c'est-à-dire euh, frais d'inscription yi pour le moyen secondaire circulaire bi ko génne moom mooy diggante 3000 la ak dix mille. circulaire bi fu mu génne ku génne. circulaire ministère de l' nationale la. moom leen wax ñuy laaj xaalis. moo ko génnee. ah, mm. ah voilà loolu loolu très bien kon affaire à suivre mm. wax dëgg yàlla mm. suñu gënoon poussé waxtaan bi xëy na yeneen dana fi feeñ ndax mi ngi ñuy xamal ne mm-hmm. euh, li mm-hmm. ñuy inspiré ministère bi ci boppam mm-hmm. moo ko fixé circulaire la très bien kon suñu école publique lu ñu war a saytuwaat la gën ko xolaat Miya Ndour ñu ngi lay remercier yow ak waa régie waaye tam di def appel au donateur ñi nga xam ne ñu ngi nekk à travers le monde entier am yenn possibilités yi ngeen indi ko seen biir dëkk daf ciy baax soxla nu soxla nañu ay table ba soxla nañu matériel donte dañuy wax sax état bi na def mais yéen itam ci ñi ñuy seetaan am na ñu yàlla may ba nga xam ne jàppal ma jàpp la ñuy def indi seen dëkk ci lu indil ko lu dul jeex ñu ngi remercier góor gi si Dieng parce que moom itam taxawaay bu am solo la taxaw euh, dëkkam ak ñeneen ak ñeneen euh, Amignan mi ngi ko fi wax keroog ne góor gi si Dieng sax décidé na bokk ci ñi may jàppale. Ndoye Bane maa ngi doon jàll yaa ngi may woo. am solo ku nekkoon ci éducation di le le maire Bekaay Diop. Bekaay Diop di maire Ross Béthio nekkoon directeur de de des équipements. tablement yi nekkoon ci école yeeg yooyu yëpp. Ah, moom moo ko daan joxe moo génn àdduna bërki démb. waaw gis nga waaw ku am solo ci njàngaleem Sénégal. voilà man mii mos na maa may ay tablement mu yóbbu ko pire. li may li may conclure mooy état lu mu def def def def. ku ci nekk ci ñun responsabilité am dañu ko interpeller su fekkee waxante nañu dëgg. parce que dañoo am suñuy doom ca bërëb ya jàppale leen daf noo war ku mën nga def ku mënul bul def waaye boo defee bu fekkee ne am na lu muy defar tant mieux dafay gën a baaxal parce que xale yooyu nekk tamit à l'école publique dañu am cadre de vie boo xam ne dañ koy soxla te amaan na bu ñu seetaanee état bi kese du ñu ko mën yal na ñu yàlla may dégg ak topp maa ngi remercier bu baax a baax euh, Penda Stamod ñoom ñu ngi nekk ci 77 541 03 06 77 541 03 06 et Ndeye Ami Coiffure euh, Ndeye Ami Fatoumata merci à toi ñu ngi leen di jox rendez-vous suba même heure même chaîne TFM rek lay doon.